asalaamaaleykum. moo pare Tunkara. waaw kooku. man la dafa dagg par accident Issa mi ngi woon ci ligne bi mais dafa dagg mais Ndongo dañu bëgg a xam exactement comme yow yaa nekkoon ci terrain bi xaaral ma woo Issa fële pour mu pour bu mu euh, parce que dafa da nga rek moom bosam bi dagg euh, xaaral ma woo ko fële bu mu woote fi pour muy dagg mais maa ngi lay ziyaare bu baax a baax a baax. allo Ndongo. waaw ñu ngi lay a waaw doole ziar rek di leen mosu coono yéen tamit. ah déedéet déedéet yéen a nekk ci terrain yéen a ci terrain bi. Mhm. waaw Issa Ndongo moo woote après yow sa téléphone bi sote. changement yi changer position. waaw mais ndongo moom sa moom mi nekk si terrain bi. voilà voilà bu paree yow ma jëlaat la wala bu la neexee nga déglu sax Issa am nañu beneen appareil. waaw bàyyi ko mu mu dem Issa mu ne nga resté mu ne nga resté nga témoigner mën nga koo dégg am nga beneen téléphone ah Issa voilà vas-y ndongo Issa mi ngi déglu. ay ce qui s'est passé euh, toog ñu déggee écho ne du kay jël ay booy jox leen Jakarta. Mhm. juste ñu rondé autour ki nga xam ne mooy kër président Ousmane Sonko. Mhm. bi ñu koy yeggee ñun tey si ngeen soog doonoo toogoon tey di waxtaan di waxtaan di mobiliser wu. ñu dégg ne mu ngi fay ay booy ñu yónni quelques éléments pour infiltrer leen xam lan moo xew. ñu amoon intention ñoom en réalité attaquer président Ousmane Sonko. Mhm. bi ñu ko déggee ñu mobiliser vite fait ñu buntu président Ousmane Sonko ñu ne d'abord. nanu protégé wu mais avant tout lu nu waay wax bu nu fayeeku nan protégé président ba mu dem ci parce que or lañ yor ñoom mbarit lañ yor. Mm-hmm. ndax yor mbarit mënu ñoo bokk ñam. Mm-hmm. ci kaw loolu ñun ci lañ jëlee def li nga xamante ni moom mooy li ñu waxee yéen a ngi doon seetaan sur sur Orange Monde ma expliqué ñëpp ne leen. Mm-hmm. ku ñu saaga lu waay wax buñ ko faale na leen dem ci jàmm ñu jàmm jàmm la ñuy ñaan. bi ñu wootee loolu autorité yëpp yëpp nañ ko à Ziguinchor tout le monde était au courant. Mm-hmm. mais je vous le jure que bi ñuy dem ba ñu ñuy eggee. Mm-hmm. amul benn incident mais juste bi ñu tourné ci ci ci ji ci aéroport bi noonu. la benn waa yor benn xeer. côté bu passage président Ousmane Sonko taxawoon. ci la dóor xeer bi imagine kooku ba yoroon arme président Sonko tey ñu ngi naan ko rest in peace. waaw xam baax a baax a baax maa ngi lay dégg. ci kaw loolu nag ñoom seen xeer commencé dal amuñu pexe comme que ñu doon sécuriser woon taxaw ci taxaw tey ñu riposté normal bu riposté ñu raxas foofu ba mu parce que tamit il faut que ñu riposté un pour un daay pour dent. loolu mooy dëgg. gis bu riposté durant riposte seen i xeelan ñoo di nu xaañ ñëpp yéen a ngi woonoon seetaan mooy li am. loolu mooy dëgg seetaan nañ la en direct taxaw taxaw ci aéroport bi mais xol jeex na mais taxaw na pour protéger suñu président. Mhm. gis nga pendant ce temps Doudou Ka ci biir bi muy waaj a génn. Mhm. Tounkara je le dis et je le répète. Guy Marius maa ngi koy confirmé. Mhm. muy danoo andi danoo nono andi police andi gendarmerie pour sécuriser Doudou Ka allahu akbar pourtant mhm. mhm. mhm. Ousmane Sonko bi muy génn xam ne le chef de l'opposition opposition moom mooy génn amul kenn ko sécuriser sax xam ne le dañ ko bëggoon a attaqué tout le monde était au courant ñëpp yëgoon nañ ko parce que anticipé woon na laa bi nekkoon au courant alerté autorité yi mais autorité yi faale wuñu ah léegi ci kaw loolu noonu ñun en personne mi ngi nii ex nañ kër yaayu Ousmane Sonko xam naa damay génn dina waxtaan ak yéen. Mm-hmm. mais li ma ci gën a métti mooy li sa bokkoon jeexee mooy le fait que tey ñu jël président Ousmane Sonko si ko. mais du ko kii sonné lay rapport ñu pré ñu protéger ko te sorte benn bu amul fenn ça fait très mal. loolu nag bu mu amee moo nu métti ci kaw loolu sax dina yenn commissaires yi yenn kii ñëw di ma bëgg a intimider man ma riposter contre ñoom dinañ ma jël pour protéger ma parce que laa bëri woon na dugal ma ci oto bi. parce que moo bëggee dégg-dégg c'est la deuxième fois Doudou Ka moo fay ay boy d'après les informations qu'on a cinq mille boy pour ñu attaquer ñu. yéen infiltré ngeen yéen yónnee ngeen ay nit ba ñu infiltré groupe Doudou Ka ba muy fay vingt cinq mille par personne. cinq mille boy boppam laa wax en réalité Doudou Ka day def fay pour ñu attaquer cortège bi. moo tax mu joxe excuse bidon yooyu di ko jox ci Bigué Ndiaye naan ne présenté excuse am Doudou Ka ñun soxlawul excuse ce qui est ce qui est kan moo nekk derrière tout ça di ko encouragé mooy Macky Sall ils sont là à venir ñu ne néew ñi attaqué kër kër yaay Ousmane Sonko et je dis et je répète ils sont là à venir di ab jéem a attaqué kër yaay Ousmane Sonko ils sont là derrière et ma fait wax les forces de l'ordre dañ wax rek pousse booy ñoom du ñu billahi booy du ñu pousse dañuy taxaw forces bu dee ñun forces de l'ordre dañuy nangu suñu arme te du fekk ils sont là à ndongo ndongo Issa mi ngi Dame day laaj question. non Tounkara non lii c'est c'est anormal quoi mais. Ndongo Issa mi ñu wax ak yow. oui Issa. Ndongo déglul Issa Ndongo déglul Issa. oui oui Issa. oui. Ah, ah, Venezuela é possível. Ah, ah, ah, ah. nga fomp sarangoñ yi nga taxaw dafa am loo incarné dafa am loo représenté isa isa isa xam nga lan moo metti nii ba sama réew ji toog comme que j'ai envie te bàyyiwul te ma lu ah, ma am envie instant bii te bàyyiwul comme ma rek sa barrière pour montrer à que il pas garçon c'est ça qui me fait mal Je veux juste qu'on laisse avec Doudouka, deux minutes avec ces militaires pour qu'on les, monde. Ce ne sont pas des garçons, c'est ça qui m'a fait mal actuellement. Oui, oui, oui, oui. Oui. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. ah. ah, ah. gis nga Issa Issa sama àdduna dix ans ngi nii nii nii dix ans ngi nii bi mu pour vous confirmer bi mu taxawee bi mu taxawee état-major bi ñu ko taxawee des hauts gradés de l'armée sax ñëw nañ taxaw et de la gendarmerie dañoo ñëw taxaw di wax ak ñun man li ma leen wax dafa leer ñu dégg nee naa la vous êtes pas vous n'êtes pas là pour protéger mais vous êtes là pour protéger li nga xamante mooy Doudou Ka ñu bëgg ci suñu arme ñu bay et on a on a ñoom foofu la réalité en est que c'est quoi le problème en est que le fait que bàyyiwuñu benn brèche pour ñu yar leen ñoom rek moom a métti c'est ça qui nous fait mal une bonne fois pour oui nii tey. Où sont les ah. patriotes? parce que la en réalité mooy on danoo jëm zone bi zone bi léegi puisque attaque am na voilà jëm nañu blessé des gens sur ñun. ñu taxaw riposte lan moo am mooy dañu jéem a cadre jaune bi patriote bi ñëw du empêché la nga dugg. waaw ah, bi. police dafa encadré zone bi. encadré zone bi te sot ko léegi nag ñu def seen i ay dragon ak yëf ànd ak Doudou Ka yaa ngi dégg mais bu dee nag lu jëm ci kër Sonko ñu andi fi deux éléments benn oto tout court pour empêcher les autres partisans de venir ici c'est ça la c'est la réalité est-ce que am na ay patriote yoo xam ne protéger nañu kër gi ñun ñi nga xamante ni bi ñu demee ñun ñi nga xam bi ñu demee à l'aéroport ñu attaqué ni ñoo ñoo dem raxas ko ba mu set wicc les gardes du corps sont là à côté juste taxaw assuré li nga xam mooy sécurité bi kër yaay Ousmane Sonko. voilà ok donc y a la sécurité. waaye maintenant ñun DG Patriote waa GPS ñi nga xamante ni ñoom ñoo àndal présidence Ousmane Sonko mu ne ko mu ne fii ñun ñëpp toog taxaw nag fas yéene ko sécuriser ba kër gi mat sëkkal barke. loolu la ñu gëm waaw. gis nga ne président Ousmane Sonko nit ñi jàmm la bu xoolal ko neexoon léegi ñu di posté du meeting bi Doudou Ka tas léegi laa la wax one minute ñu tas ko mais nit ñi jàmm la demandé leen lu doon toog jàpp suñu ñàmbur mais xamal askan wi yëpp rek li fi xew moom mooy li xew nii ñëpp a ngi teg seen bët Sénégal yëpp ñu ngi teg seen bët injustice bi dama ne constitution ci boppam moo garanti la chef de l'opposition may ko benn statut. ñu war ko sécuriser war koo fonk kenn sécuriser wu ko mais maintenant dañuy attaqué te pour mu nii pour que lu koy lu koy témoigner Tounkara mooy lan moom mooy te njiitu mooy dañoo attaqué woon siège su Pastef ñëpp ne ñun dañuy victimiser wu ñu li nga xamante ni moom mooy benn panneau publicitaire pour président Sonko ñu ciy dóor ay civil ci biir siège su Pastef ñun ñëpp dara ñu dem si Ziguinchor président soo Sonko nekk fa. di def benn conférence de presse am mu ngi ko def ñëw police ñoo du ko intimider ñu ne dara ki nga xamante ni moom mooy euh, euh, poli yi mooy gendarmerie bu ñëwoon bu ñëw création ko bëgg a sàcc parrainage yi ñëw Aly Ngouille Ndiaye taxaw kat ci biir assemblée nationale nekkat en réalité kooku assemblée euh, nu ñu koy waxati waay gendarmerie du intervenir foofu tey histoire jox moom raison ndax gendarmerie bu tey ngeen ko un mois te ci yoon sax dañ ko waroon a soumis définitivement ñu jógee ci loolu.

ñun ñu patriote yi parce que ñun xam na ne bu dee ñun patriote di ñun ñoo attaqué dañuy dóor ba mu bëgg a dee ci ay nit dagg seen loxo tas suñu kër yi mooy loolu bu dee nag ñu nekk parti au pouvoir ñoo attaqué voilà on est protège c'est Sénégal moo fi am tey te à chaque fois à chaque fois c'est comme ça ndax bu ñuy confisqué suñuy armes yi nga xam moom la yoroon pour protéger mu ay yet kese la lu am ñun parce que bu yoon obligé ñu dem ay branche pour yor ay yat et tout gannaaw policier dama bëggoon a jël suñu yat bàyyi waa ko dugg kat yi négocier ñoom ñu bañ ñu taxaw nañu duñ jàll duñ franchir c' est ça qu' on a refusé catégoriquement aw fii aw te foofu lañ aw. waaw Issa ok Issa. ci suñu cas moom peut-être ay ñaar ji ci bokk toj côté bee xaw ma ko parce que ñooñu attaqué ñi riposté ba mu saf saf raxas aéroport ba mu set ñëpp duudu ko waaf ci biir ñi nga ne mooy aéroport te te ne bu ko tolloon noonu nag mënoon na génn kon ko moom jàmbaar la ba yebal ay nit ñuy attaqué bu ko tolloon noonu mënoon na génn yaa may dégg Tounkara maa ngi lay dafa waaf pour sénégalais am ko duudu ko dafa waaf ci biir bi nga xamante ni def caacaay moo si biir aéroport bi moo gendarmerie moo police moo armée ñu sécuriser ko pour mu mën a génn c'est ce nag am jom comme ni président Sonko def ànd ak ay boom ñoom bu doon ñu ne ñoom ak ñoom ñu comme ay gone da leen di yeew summi leen puus leen puudar leen dem tëral leen seen sans Et dit à, tout le monde que désormais président Sonko kenn dootu pas intimider ji passeport diplomatique nous le réclame, réclamer nous koy jox force et nous demandons à la mobilisation de tous les jeunes que nous laaj ko passeport diplomatique que ñu bañ ñu intimider pour ñu intimider dañuy riposter. parce que là Adji Sarr mi ngi dox soxlaam. ki nga xam mooy Sidi Ahmed Mbaye bàyyam bokk ci nga xam mooy affaire mi ngi dox soxlaam. pendant ce temps ñun jeunes yi nekk si téye na suñu passeport téye na suñu portable téye na nangam di ñu intimider chaque jour. voilà ce qui se passe Sénégal donc kon tey bu ñu fayoo ko rek nit ñi xam ne dañoo yàgg a tooñ ñu riposter mais nañ jàpp ne nañ ñu leen attaqué pour Abou Tounkara. waaw ndongo euh, Issa am nga question parce que am naa benn am na déglu nañu sa benn vidéo boo xam ne yaa ngi wax ci biir cortège ñu ngi xaañ ah. ñu ngi xaañ kii nga xam ne moom mooy jabaru ancien président Guinée-Bissau. exactement maa ko confirmé Kama Jamal Diagne ko confirmé président woon foofu noonu juste pour ruubee ñoom ñëpp ñu nga foon man xaañ. mais man Kay ñoo ñu xaañ ay xeer. conseil na leen arrêté faalewul leen taxaw conseil di xaañ ay xeer en réalité xaañ xeer ba xaañaale ki nga xam te mooy ancien jabaru ki nga xamante ni moom mooy président Guinée Bissau bopp bi toj ak d'autres blessés yooyu ñi nga xam ne ni dañoo ñëwoon tourisme wala ñëw pour visite wala pour ñëw seet Sénégal ñooñu ay xeera leen xa gaañ muy xeey waa kër Doudou Ka yi mais Madiambal Diagne dafa nekkoon aéroport AIBD effectivement bi muy génn nañ ko escorté ba mu pour rafet. mais Madiambal Diagne lu mu doon wut lu mu doon wut AIBD. Euh, du AIBD mais plutôt aéroport. amiin aéroport Ziguinchor baal ma aéroport Ziguinchor la ma exactement fa la nekkoon je ne sais pas la aussi fii mais c'est sûr que moom ñoom Doudou ñoo bokk bool wàcc ñu sécuriser ko ba mu rafet bu dee Madiambal Diagne mérité na ñu sécuriser ko. mais bu dee président Sonko ki nga xamante ne mooy chef de l'opposition nekk ki nga mooy député nekk bin fis sàccul deful traficul faux yaa ngi dégg traficul passeport diplomatique yi am raison ci 94 milliards lu wax Sénégalais si ba ngoon jot ñëpp xam ne lii mooy dëgg la bu dee moom nag yow sécurité mais bu dee genre yi nga xamante ay sàcc lan ay kàccikat lan ñoom yooyu dañ leen di leen loolu mooy li am Sénégal en réalité. bi xew bi amee la réaction du mu amee bi ni bi ni ñëwee waa ji attaqué ko door ci oto bi ndax gis ngeen mi ngi koy filmé noonu immédiatement ci leen riposté garde du corps yi macha allah mention spéciale à à à ñun ñëpp ñu riposté noo raxas aéroport ba mu nit ci weex tàll pour que mën a sécuriser ki xam ne mooy président Ousmane Sonko seulement li ñu déploré moom mooy lan président Sonko moment bi nga xamante ne ñu ngi ko sécuriser les forces de l'ordre di gis booy di ko attaqué et que peu de 3 4 ñoo fa nekkoon te réagir et je confirme. et ils étaient là-bas et je confirme. non là-bas il y avait. quatre gendarmes qui étaient là, ils n'ont pas riposté ni venu apporter le soutien ñi nga o te ne mooy sécurité au président Ousmane Sonko te ku ne xam ne instant bi ci ci que boobu ñu está aqui, attaqué ku mel ni président Ousmane Sonko du n'importe qui du Sénégal loolu dañ ko war a sécuriser mais boobu ñu ngi toog à côté ñoom réagir ñun nag ci lañ jël suñu matuwaay raxas foofu ba mu set huit huit huit pour protéger suñu président Ousmane Sonko biñ demee ba président nga xam kuréel dugg ba dem Dakar non Dakar dañ teeru nag s'il vous plaît dañ dem parce que là Sénégal wóoratul wóoratul wóoratul ñun ci ñibbee waa kat Doudou Ka taxaw ci télé bi nag di négocier ak ñoom tranquillement sans problème ñoom ñoo duñ fa jógee fa jaar ñoom ñuy xayante policiers yi ñu insisté jaar fa pour ñoom policiers yi duñ franchir ça veut ñoom ñoo leen protégé mais ñun parce que bu ñu bàyyi ñoom Mais à un moment donné, est-ce que la vie de, du président Ousmane Sonko, est-ce que may ngeen leen ko est-ce que may ngeen à un moment donné savoir que le président Ousmane Sonko sa vie était menacée est-ce que nous jam jege ko. seulement je ne Ka pas def de telle sorte ko wàcc aéroport je coïncider ak départ président Ousmane Sonko parce que le président Ousmane Sonko moo njëkk a ñëw kon ça veut dire que le na nga réservation ok. xam nga président Ousmane Sonko defoon li nga xam réservation bu doon Doudou Ka jàmm la ko bëgg. Mhm. te yéen yàgg ngeen a ci avion. su ko neexoon mu réservé ñëw ci bëccëg gi. wala mu changé horaire am bañ a coïncider ak président Ousmane Sonko mais il a fait exprès mu def. gars yi jégal leen ma xoola gars yi ñoom dañuy woote ah, ñoom dañuy jékki-jékki rek woote dugg ci ligne bi yàq waxu nit ñi Issa maa ngi jégalu de gars yi moom c'est comme ça. Ah. dafa am solo gars yi dañu amul discipline quoi da ngay amuñu discipline da ngay nekk ci téléphone di di kii ñoom ñu ñëw dugg ci ligne te vraiment ils ne comprennent rien quoi ñun ñu ngi wax fulla ak fayda ñoom ñu ngi ñëw di dugg di gàtte affaire waaw vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y Ndongo li nga ki ki nga ki nga xamante ni moom mooy Doudou Ka il a fait de telle sorte que mu coïncider ak départ président Sonko pare jël ay militant am fay leen comme ni may waxee ñu taxaw fa alentour bi ñu taxaw ñoom pour de yi gis nañ ni am nañu fi taxaw te président Ousmane Sonko war nañu wootee borom ji bi ndax dafa dagg biir sécuriser wuñ ko wax ñu les ñu écarté dem à distance pour que président mën a dugg kenn du laalante bu leen neexoon ñu def ko mais defuñu ko danoo toog di seetaan moment boobu nag nga xam ne ñun c'est vrai que ci digg télé bi la ñuy jaar pour yóbbu président Ousmane Sonko ci moment boobu lañ ko jege ci la xeet bi ñuy dal mais juste sama tante moo nekkoon moment boobu noonu fekk ko ñoom ñoroon na seen biir ay fetal ñun na la ñuy def te c'est possible après ku ñu koy giñ dañ lay mujj ça veut dire que kooku j'appelle à tous les patriotes aussi tam ñu gën a fee ci nga xam mooy. yéen defu leen est-ce que def nañu patriotes yi def nañu boucle autour du autour de Ousmane Sonko de telle sorte que kenn mënul woon yegg ci moom.

Uh-huh. mi mu ne waa GIGN ñoo uh-huh. nga fa woon waa GIGN ah. ñëpp a nga fa woon le RG tout le monde était là-bas ñun on les connaît tous. mais ñoom Doudou Ka la ñu ñëwoon sécuriser. waaye sécuriser ko drapeau bi nga xamante ni sax ñëwoon na toppal ci cortège bi toujours que ne sécuriser muy nekk defile neex voilà kenn intimidé ko muy dox lu neex mais bu dee ñun ñu jobal ñu ñaari oto tout bu ñu bëggee franchir ñu bëgg andi problème voilà ci la ma ki nga xam sécurité présentement soo ko jël ma dama dugal ci li ko sécurité parce que j'ai failli même tête à tête ak yi nga xamante ni moom mooy au grade fa nekkoon parce que man ak ñoom bëri nga xamante ni moom laa yoroon moo ñett moo yoroon parce que moom rek laa yoroon comme ngaan te sama bii dafa nekkoon en danger jeune patriote seen bii ñoom nekkoon en danger ñu bëgg koo professeur bàyyi waa ko boobu te ñu taxaw jàkkaarloo di négocier ñoom c'est ce qui s'est passé en réalité donc force de l'ordre dox nañu seen diggante ak ñoom mais ni ñu ko doxee seen ñoom ñoom dañoo dem ñu négocier seen ñoom ñun ñu bëgg ñoo désarmer ak sunu yàq ñu bañ ñu ñëw duñu intimider moment boobu noonu ba kenn ki naa ko fii autorité amatu fii parce que xam ngeen li xew ci leen commencé clash ci leen ma sama xol jeex na là ça fait dix ans sama rongoñ toq mais boobu noonu li ma métti mooy le fait que mënu ba jot ci ñoom rek pour wane leen lépp dëgg la man loolu moo bon sama xol mënatuñu ko muñ

est-ce que vous avez suffisamment de sécurité Non, je vais, je vais pas. vas-y vas-y pour wax sama pour wax sama akulaay taala ñi nga xam waaye GPS ñu ngi nii toog ki nga xam ne di mooy kër président Ousmane Sonko kër yaayam ñu ngi nii di ma dégg waa GPS mais ñu ñoo sécuriser président ba mu yegg je crois que bu ñu ko defutoon tey leneen la ñuy wax mais waa JPS moo ànd ak collaboré ki nga xam sécurité président yor ay jakarta dugg ci oto dox ànd ak moom yeneen loolu isla bi ci kalam parce que ñun yëgoon nañ ko mais alerté wa alerté woon autorité yi pour wax leen ne leen courant que ñu ngi préparé benn attaque contre le président Ousmane Sonko mais ñoom autorité yi kenn réagir te ñoom ñoo yor li nga xamante ni ñoom ñoo yor li nga xamante ni sécurité sénégalais yëpp ñëpp war ci tolloo rawatina ki nga xam mooy président Ousmane Sonko mais non seulement sécuriser wuñ ko dañoo bàyyi laisser aller bi ba laisser aller boobu nag ñun bu ñu xamee ne ñun ndaxte ji bu président Sonko rek moo dem ak ay garde du corps am non mën na noo tuuti mais JPS jël na ay matuwaayam moo tax foofu ñu raxas ko ba mu set ça veut dire que pour côté sécurité Ousmane Sonko c' est vrai que ñun yoruñu ay armes lu ñu yoroon moom mooy ay bateau la ñu yoroon pour se protéger ay bateau la ñu yoroon pour se protéger parce que on ne voulait pas te su bateau dañ ko dugg jotee bu ñu attaqué ci leen soog a génn suñu bateau voilà kaar yaa ngi ñëw y' a d' autres personnes qui viennent yeneen kaar yaa ngi ñëw yeneen patriotes voilà lii lay jur nag. waaw waaw. matériel yaa ngi ñëw am na ñeneen ñi ñëw. ci kër yaa ngi Ousmane Sonko. waaw ñu ngi commencé gën a bëri mais aussi tamit. voilà waaw les forces de sont là je sais pas pourquoi ils sont là aussi. moi je ne crois pas qu'ils sont là pour ñun ñoom waa Doudou Ka ñoo soxla pour fu ñu toll sécurité parce que c'est juste pour là pour ñu surveiller en réalité mais ils ne sont pas là pour nous protéger parce que bu ñu doon doon ñu protéger au départ bi ñu alerté la ñu ànd ak ñu protéger ñu. ndongo. oui oui. oui. discours La police, ah. Non, ils sont là à nous surveiller. Ah. Ah. Ah. ah des affaires. état maanaam maanaam c'est des affaires li ko wër président Yaya Ousmane Sonko c'est déjà sécurisé mais je veux dire que c'est juste pour attirer attention ñi nga sénégalais la police nous suit pour protéger parce que bu ko bëggoon day exactement la police est là pour surveiller pour bannir ñu dem fayeeku c'est que c'est que foofu laa bëgg a attirer attention voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et ça, c'est juste pour, vous dire que. Pour vous dire que c'est ça. Pour nous, dit, président nous mais billahi beaucoup dit que mais malheureusement sont là pour juste surveiller sur nos réactions, c'est ça.

Eh, eh. effectivement bu leen attaqué ngeen fayu bu kenn. effectivement mais c'est juste Tounkara pour vous dire que instant bii si parce que ñun toog dégg dégg ndigal dégg lépp pour protéger kër yaa Ousmane Sonko c'est juste pour dire que discipline de parti bi nga xam respecté na suñu bi nga xam respecté nañ ko moo tax ñu toog sa jàpp suñu ñaamur mais je tenais à dire à tous les Sénégalais suñu neexoon laa wax suñu neexoon mën nañoo dem tas ko léegi mais am na yar ba nga xam ne dañuy toog déglu suñu kilifa. toog di déglu li nga xam ne moom la ñu digal ndax bëgg jàmm bu ñu seen Muntaxa Mbàkke ñaanoon te loolu solo ñun noonu la ñuy chercher en mais à chaque fois ñu leen di attaqué ça suffit nag ça suffit ça suffit juste pour vous dire que aussi tamit li nga xamante ni am na fii tey di ñaan waa Dakar ñu dem gàttanu le président Ousmane Sonko nan ko dem gàttanu ji nan ko dem gàttanu ji waaw. non ñu ngi koy dem ñu ngi dem gaa yaa ngi dem AIBD gaa yëpp dinañ fa nekk bu soobee yàlla incha allahu rabbi donc pour euh, dire que li li tàngal sama xol rek la tunkaram mooy le fait que may ñu ma tuuti ak duudu kam ma jëlee a Dakar am ko rek bi muy génn loolu moo tàngal sama xol mais juste pour dire que les patriotes sont là ah uh-huh. Uh-huh. jarul jarul yàkkam di ndogo mi ngi ci kanam mi ngi ci kanam même biiru maafe sax même buuri biiru maafe sax moom ci boppam xam naa nañ ko jëlee yaru Dakar mu xam ne désormais amatul lu ñuy ragal du force de l'ordre du lenn xam nga lu ñuy ragal dafa am lu ñuy jom def waaye amatul lu ñuy ragal suñu àdduna dafa am lu ñuy rusatef am lu ñuy jom ma def loolu kese la mais ñun musuñu ragal les patriotes sont là armés jusqu'aux dents yor suñuy yàq ku jege kër yaay Ousmane Sonko ñu géej la foofu ñu ci réew ñu ci sécurité président nag dégg nañ ko waa Dakar dégg nañ ko waa Thiès dégg nañ ko waa Mbour dem kat lu ko massivement doxantu naag ba dugal këram

ah. ok xam naa ne waa JPS aussi tam xam naa ne prévoir benn marche. waa JPEG nañ prévoir benn marche pour avertir ñi nga xam mooy autorité yi ne dootul amati. voilà Obrigado. merci. waa Ndogo. ok waa joxal jo yeggalil suñu nuyoo nag patriote yëpp ne leen. Eh, gars yi gars yi Tunkara mu ngi leen di ziar. waa JPEG diaspora bi diaspora bi Tunkara Issa Diène diaspora bi. ñu ngi seen ginnaaw bi ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen remercier ci protection bu ngeen protéger le président Ousmane Sonko. Eh, même sécurité bi eh, gars yi. gars yi ñu ngi leen di ziar bu baax gars yi dégg na leen aussi Tounkara merci beaucoup merci beaucoup